sport 24 Aladji Malick TV ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax ànd beeg ñun am na solo yal na yàlla dolli sutura dolli ko ci mim réew Ilimaan Ndiaye mu dugg si nag daanaka muy bànneexoom ñëpp ñi nga xam ne doon nañ toog seen petit écran jàkkaarloo Canal Plus wala télévision bii di RTS 1 abonnement yi ñu ngi koy sàkku ci yéen yow mi nga xam ne yaay door ak si ci sport 24 100 pour cent sport nga dàbbar ñi bu baax a baax Lamine Camara ngoogu mu ngi noonu moo nekk li naan tey jii suñu doon wax match boobee bi ñu coytoo ñaar fukki doomu aadama ñi nekkoon ci biir terrain bi ak ñaar mooy ki nga xam ni moo ci dàq football wala ci jour boobu moo ci gën a dox maanaam l'homme du match mooy góoru match ba kon daanaka match ba tas na ci moom wax dëgg yàlla suwaa bi Aliou Cissé def ci moom ànd ak gone yi suwaa boobee suwaa bu ñëpp di rafetlu la ndax dañ daan yóbbu équipe nationale senegal ay gone di leen teg ci baa bi waaye Aliou Cissé wax dëgg yàlla may na ko sansam sans bi mu ko may nag fay na Aliou Cissé ba wes ko ndax Toussassar daanaka dafa dàbbar ñi bu baax a baax ba xolu gaa ñëpp sedd xolum ñu ne woon ci supporters yi sax daanaka seddaale nan Lamine Camara homme du match ma ñaanal ko jàmm xam naa ni euh, seen kàddu peut-être àggul fi kàddu gi may def nii mën a àgg waaye boole naa leen ñëpp ci ñaan gi jàmm ak salaam moom mii di euh, Lamine kamara gonek bu mu juumul Tambacounda gi ilimaani attaquant yi moom it ngeen gis ko dugg siyam nag gaa yi wax dëgg yàlla dugg si ga am na solo dugg si ga cuqur mbooj na dugg si ga jaar na yoon rafet na lool car macha allah na mu ñëwee ñëpp bég nañ ci xol sedd na waaye nag dabbar ñi gi mu def ak dëpp géeg duppande gi moo jaaxal gaa ñi bit bi mu paas kii di Lamine bi si boobee na ma ko def gulla bi bi dugg dénn dem potokar leen rajax-rajaxi ñëwaat daal di koy jox taajal ko ko ay ginaar yu ñor xomb ginaar nag roof daal di teg ci taabal ji loolu lañ ca soxla Lamine Camara bi ñëwee ànd ak moom waaye ba mu dugalee bit ba image bu daw yaram complicité bi nga xam ni ànd na ko sama waa ji jànco international di ko wan ni daanaka ñu mën di defit jën ci sa ginnaaw yow la ñu topp yow yaay numéro un ci Sénégal waaye lu ñu def rek tudde nañ la ko moo gis Sadio Mané am mbégte ci kii di gone gi ñoom ñaar ñu ànd di gundaandaat ci géejug bànneex di ànd di gundaandaat fële nga xam ne moo nekk Yamoussoukro ñu sukk fii di leen dolli ñaan jangeen jëf